a waaye nee na fang kenn du ko jeex. wuu yi nag moom ku ko bëgg a gis da ngay baato bi nga xam ne mooy zone Sokone fii si Daga Jawdin lañ nekk tout droit Ibou Ndiaye laajte Ibou Ndiaye yaa doon laajte ndax nag yi baax na wala ma lii nag rek Haro Dieng trois euh, vaincu Haro Dieng deux ndiki wala toog a jeng nak li nga ful mhm. vaincu vaincu a gara jeng nak yi am bak ndiki bi si nga Ibu Deti. Acha Ibu lolu. Kandi tande. Biram din choro. Ciam ciam. Gana ciam ciam ciam. Ciam ciam ne go. Ciam ne. Ci o aswai. Ci o aswai. Sejal kali. Oi. Nak rek. Jor ne sikang apa aku lek apa. Wow wow. taa biram jutine bo nga biram moy ta jangna jutine puso way eh tuse way ti ay tabi ari ari mena ibu jege ana moy na ibu birami Eh, biram bisa net eh, iya, yo munggok. ngok biram aja ayo ko 10000 gede aja na de gara ke ngaja nakke fi nang aja wow. Hei, eh, biram bisa. amay dong. yo yo aja tim anda rek ye mom wala sa sa rek ya wi na men kon you know ne ne ne ne Mm-hmm. waagirong roog soom ten ci'axam e saafong ndeeres roog yaasam keke refka i muud noor ka insalahu rabi neeke ren yaasam roog a fiyantina in neen mbaan roog a fiyong champion fa maak a felanga ku refna ten wërsakof xan daawin ku refeer na wërsakof koy ba xeda roog daawin insalahu rabi c'est beau ça c'est le sport i bo

Diourbel eh, goynɗonma vingt cinq na ko jangin eh, jangtitoke ando naye te ref Ndiol Sana vraiment eh, xaye mbugomo lamit rek naak keke soɓoname ke xaye no Daga Diawdine bo xa yeego xa ga'o ten waaw sante'a roog rek roog ten dogagun rek yaam waag'aam o gar yen premier tour yaam xa ɓiin wiin maafum bo fadiid mene fadiiduma to moƴiima den ye'es moƴee den yaay den ka yakaara den fog we den a yakaara den a mbapa den de ngar roog a xaña den a ci'aam kinum tax a naf wa roog ten suturana xam ten ciya xam maxey santa roog a paax xeɗana mbir nu gar'ina meen ku defna warsakof mene bo a seek fe weg ka yasam roog a fiyanongo ten na barke seedinamxaybinu sereer i ndef paap ke in fo maam ke in a maafre ba a mbaas mose farig xay biram feke naga nu nafa te nafa xam u feet i mbaga ndet bo mbaru netir xa ɓi waraam waagu ret ɓiɓaan um jeganga xay ɗom waaga ka feeg na biram a wara gar mbines kon kene ka faga sport a ref maaga yiin yikini yiin fop a pyramid wallaay kene ka faga kon fata mosa rek mm-hmm. nam gato nak nam mm-hmm. yay ngara we lam ta nak mba nak mm-hmm. eh, te ref ka na mut ka in na barke seydina mo ibu ta hekto njom ne eh? ta hekto njom eh. na ma es ngo ca juuf i njom garano na meke tam yektano nam fi bo yekin non kam mof bo xator te jeg copain ko ya xama meeke ga a jega nak te geena meeke to def e sax ke nda kam gar upur manam kam ge de tanga tankana ne maafrogema mi manque nga competition rek kan jega problem nda maafrange coom ɗik tadik enseigné a den kan kan kan do ma andana ɗoma maafe kaaga andananuma xooxes i kaaga taxu rek ngar wa dit competition rek wa dit um yam ke i sentu'oxa ten ref bo redoor fe bo toog fa i nda kene ka i rek bo i njeg rek i mbogin fo wiin weke rooga fokat na in den ngija in in way féliciter am a paax jaajëf Biram encourager am rek naga ref mbir vraiment mosa ayo ngook ibu ibu Biram 2 voilà mu ngi noonu naga saxita naga reta rek